lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sa buur doo sàkku yooneen sa soppe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 qaala taala wa ida jaaka allazina yuminuuna bi ayatina faqul salaamun aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ganaa loon mbokki seen mbokk nangu daara moo ñëwaatam Ibrahima Diaw ci seen waxtaan ci aalamul jinni wa shayatin ci seen waxtaan ci kémta ci ci seen waxtaan ci aalamul jinni wa shayatin aalamul jinni wa shayatin indi woon nañ ci ay leeral yu bëri waaye nag bi nga xamante ne moom lañuy mujje woon jël mooy li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy xel du dàq ne jinne lu am la waaye nag beneen bi tamit jëloon li nga xamante ne mooy kan lañ kan lay njëkk a bind ci jinne yi tey nag incha allah dañuy xuus ci bunt boobu noonu daal di indiwaat li nga xamante ne mooy yeneen mbir ci aalamul jinni wa shayatin benn bi moom mooy sababu xalqil jinn mooy sabab bi nga xamante ne moo tax yàlla si moom daal di bind jinne yi ban sabab la loolu ab laaj la beneen bi mooy maadatu xalqil jinn mooy ban matière lañu bindee li nga xamante ne mooy jinne yi ñaari leer yooyu noonu lañu am ci aalamu jinn wa shayatin yi sababu xalqil jinn sabab bi tax yàlla si mu daal di bind li nga xamante ne moom mooy jinne yi nekkul ñaari sabab nekkul ñett nekkul juróom nekkul fukk benn sabab la benn sabab la amul beneen te sabab boobu noon moo tax tamit yàlla si mu daal ñuy bind ñun ñii di doomu aadama yi te sabab boobu noon yàlla si borom moo ko xamle ci biir alquran ci sootu zaariyaat aaya borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne baad audu billahi min alsheytaani arrajim wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun sadaqa allahu alazim yàlla yàlla si borom dafa wax ne wa ma xalaqtu ljinna nee na bind ma jinne wal insa ak nit illa lu dul liyacbuduun ngir ñu jaamu ma yàlla nee na binduma jinne ak nit lu dul ñu daal li may jaamu lii moo tax amul leneen mooy yàlla su def ñu bind na ñu ne jinne yi ngir ñu daal di koy ngir ñu daal di koy jaamu lan moo tax ñu daal indi li nga xamante ne mooy bunt bii nag mooy dafa am li nga xamante ne mooy leneen li nga xamante ne nopp doomu aadama far nañ ko di miin mooy li ngay dégg ñu ne yént bi saa sallam moo tax ñu daal ñuy bind loolu nag yént bi saa sallam waxu ko yàlla si borom waxu ko yàlla si lu wax ne lu mu wax mu nekk lu leer mooy wa ma xalaqtul jinn wal insa illa li yabudun binduma jinn ak doomu aadama lu doonu jaamu ma keneen ku ñëw ne dañuy bind li nga xamante ne mooy jinn yi ngir muhammad wala dañuy bind diw wala leneen ngir muhammad loolu dañ lay wax ne la qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin dañ leen di wax ne leen andi andi seen preuve ci loolu indi leen seen ay preuve ci alquran wala ci waxu yént bi fan fan la ko waxee su fekkee li ngeen di wax dëgg la kon sabab bu tax yàlla suñu daal ñu bind lenn kase la mooy ñu jaamu ko ñu daal koy ñu daal di koy ñu daal di koy jaamu waaye nu am ba am mooy yonent bi sallallahu alayhi nag moom mooy sangu doomu aadama yi saa sama wax ci xaddis ne ana sayyidu waladi aadama wala faxar mooy man maay sangu doomu aadama yi te ndamu taxul ma wax ko loolu lool waaye nag lu tax yàlla suñu daal di bind ay mbindeefam nag ah bokk na ci jinn ak doomu aadama yi mooy ngir ñu jaamu ko beneen bi mooy maadatu xalqil jinn mooy matière bi nga xamante ne yàlla si borom moom la bindee bindeef bu ñuy wax jinn ban matière la ñun de xam na nañu ne ci alxuraan na ñun doomu aadama yi suñu matière suñu cosaan mooy li nga xamante ne mooy ban mooy suuf waaye jinn yi nag lan mooy li nga xamante ne mooy seen matière bu leen yàlla si moom bindee loolu yonent bi sallallahu alayhi wax na ko alxuraan tamit wax na ko yàlla si borom. su fekkee da nga dem ci li nga xamante ne moom mooy ci sóotu rahman aaya 15 li nga fekk sa borom daal di wax ne baad aoudu billahi min ashaytaani rajim xalaqa al insana min salsalin kalfaxaar wa xalaqa al janna min maarijin min naar fa bi فبأي آلاء ربكما تكذبان sadaqallaahu al-aziim di nga fekk sa borom daal di wax ne bind nañ doomu aadama ci li nga xamante ne mooy ci ban ban ci li nga xamante ne mooy ci ban bi nga xamante ne mooy ban bu tooy waaye nag mu ne bind ne li nga xamante ne moom mooy jinne nag si tàkku tàkku safara ci tàkku safara beneen aaya mu daal lay wax ci sootu xijir mu ne والجان خلقناه من قبل من نار السموم yàlla si bu daal di wax ne li nga xamante ne mooy jaan muy jinn bind nañ ko avant doomu aadama ci safara yi samuum mooy safara si nga xamante ne safara su xonq la moo tax ki nga xamante ne mooy Ibn Abbas dafa wax ne dañuy bind li nga xamante ne moom mooy jin jinne min nihaayati lahabin naar mooy safara su fekkee dafa tàkk falam bi ci catu falaam bi fu mu jeexee foofu la yàlla soom daal di tibb muy fett foofu la yàlla soom bindee li nga xamante ne moom mooy ah jinne kon jëlu ci safara si direct mais ci fett fettu safara foofu la tibbee li nga xamante ne mooy jinne daal di ko ci daal di ko ci mooñ moo tax ki nga xamante ne mooy iblis laanahullah ba ko yàlla soom daal di waxee ne sujootal suñu maam aadama daal di lànk yàlla si da ko wax ne ko lan moo tax sujootoo mu daal di wax ne أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين dafa wax ne man maa gën aadama mi ndax danga maa bind ci safara moom aadama nga daal di koy bind ci ban kon Iblis moo sax xam ne ñoom jinne yi ci safara lan leen lan leen bind mu bokk ci xadis bi nga xamante ne romb nañ ko woon muy xadisu suñu Aïcha radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi daal di wax ne xuliqatil malaaikatu min nuur wa xuliqal jaanu min maarijin min naar wa xuliqa aadamu mimma wasafa lakum yonent bi daal di wax ne bind nañu malaayka yi ci leer waaye nag ñu bind li nga xamante ne mooy jinne yi ci tàkku tàkku safara waaye nag ñu bind suñu maam aadama ci li leen melal muy li nga xamante ne moom mooy ban kon yooyu noonu ay xaddis lak ay aaya yuy wane ne li nga xamante ne mooy jinne seen cosaan mooy li nga xamante ne mooy tàkku tàkku safara muy li nga xamante ne moom mooy ah, safara kon mbokk yi ñaari leer yooyu la amoon ci aalimu jinn wa shayatin soo la toppee ci jotaay di ngeen ci gis yeneen leeral ci aalimu jinn lislaamaa ngi jooy jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe